asalaamaaleykum mbokk yi déglu la 97.5 Rewmi FM ñu am mbégte di ànd ak yéen ci SOS santé tey ñu am mbégte di ci ànd ak euh, kii nga xam ne moom mooy Adja Ndeye Diakhaté euh, di kon euh, vice présidente bu ànd Gueusseum donc euh, tey ñu nar a waxtaanee li nga xam ne moom mooy jafe-jafe bi nga xam ne jamono ji syndicat yi ñu ngi ko am waaye tamit euh, li nga xam ne moom la ñuy xeex ci réew mi naka noonee ni ñu yoree wàllu Covid bi tamit ci biir réew mi euh, dañuy may rek Adja Ndeye mu nuyoo ak mbokki auditeurs yi balaa ñu dugg ci waxtaan bi. waaw oh, salaamaaleykum waa Rewmi FM maa ngi nuyu képp koo xam ne auditeur nga Rewmi FM di nuyu di nuyu yow di nuyu waa ànd gësëm teg ci euh, nuyoo bi ci loxo président Mbaalo Dia Thiam di nuyu euh, euh, waa ànd gësam local hôpital Abass ndaw et tous les secrétaires généraux qui qui qui mhm. di la nuyu également di la jaajëfal ci disponibilité bi kon Adja Ndeye ñu gis ne ci jamono yi waa ànd gësam danoo danoo jóg daal di rek taxawal ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykatu hôpital Abass ndaw donc tey jii euh, mën nga revenir un ci déjà genèse bi ak lan mooy problème bi nga xam ne moom la hôpital boobule di jànkonteel ci jamono yi. waaw hôpital bi de li muy jànkonteel mooy que euh, déjà dysfonctionnement yoo xam ne dañ ko fee noté euh, yaakaar naa démb ku seetaan suñu kii yu grève générale bi kii bi nga xam ne patient yi. accompagnant yi ñoo ko doon wax dafay leer dafay leer comme midi Mm-hmm. ne que nous avons des dysfonctionnements parce que koo xam ne yàlla dafa dogal bu mucc. Mm-hmm. te mucc war a ànd ak ndox ak cet. Mm-hmm. ci période Covid kooku mën a taxaw ne soxnaam sanguwul loolu rek jar naa tëj hôpital ndax euh, mënuñu ni les mesures barrières raxasu daf cee bokk déjà te ndox mi war a doy sëkk ci structure hospitalière bu mel ni a Abass ndaw amul loolu rek. Euh, déjà dafa dafa dafa doy ci ci ci ci ci ci ci tëj hôpital bi. Mhm. Euh, euh, ñu ñu ci période Covid ngeen gis ne que suñu suñ amuñu ambulance yoo xam ne nii moo moo nekk ci dormi mi benn ambulance la ñu am bu ñu ministère joxoon paan na yàgg na taluñu ko sax ñoom suñu morgue doxul. Mhm. gis ngeen ndox yi amul courant yi di takk kii ci boppam locaux yi ci boppam yi ci yi ci fàq seeni seeni toiture ndax. faute d'étanchéité bare lool euh, mu daal di ñu war di waxtaanee yooyu mu xëy suba euh, moom dafa wax ne ñun dañoo dañoo braver autorité wu ministère de l'intérieur mhm. waaye moom dafa braver décret présidentiel braver euh, les textes administratifs qui régissent l'administration sénégalaise mais les conventions internationales aussi nga xam Sénégal moo ko ratifié mhm. loolu mooy xëy suba ndax li loolu ñuy jàmbat daal di ne représentant personnel bi daal comme moom moo jiite lool dootu ko fi waxeeti mooy daf koy génne te représentation personnelle xam nga ni loolu yëpp moo ko iir mu am malaanum kiir laay moo xam ne mm-hmm. tuuti na ci mën koo dindi mm-hmm. ñu gis ne dem sax ba mbir mi ñu ci wax ay waxu yoon ak yooyu ne directeur de l'hôpital dafa traîner ay collègues en justice mu mel ni kon mbir mi mujj na jël ampleur boo xamante ne du loo xam ne lu rafet la ci hôpital waaw moom moo ko gisee noonu ndax moom mm-hmm. la tax mu yóbbu woon ñu daf nee danoo yàq otoom de marque Bichon. Mm-hmm. c'est-à-dire destruction de biens euh, matériels appartenant à autrui. Mm-hmm. mooy nee na moom otoom la ñu yàq. waaye euh, comptable matière am moom daf ko dafa dafa dafa wax la contraire ndax ba loolu amee ba ñu yóbbu ba mu yóbbu ñu mu xëy retiré plainte bi da dafa dañoo dem ci waa ji laaj ko mu ne ñu de gisuñu pono buñ fi bënn waaye pono bu bu bu air manqué la Eh, ay ñu ne ko ndax oto bi dafa am ay gravats mun a déedéet te oto boobu du otoom oto hôpital bi la. Mm. li nga moom ak li ñëpp bokk du benn. moomu ko mbiri hôpital bi la bu doon dem tey da ko fii bàyyi te fas na ko ba sax ak ñun kon nag mm. du otoom oto la boo xam ne nii wax dëgg eh, dañ ko fee indi woon mu nekk véhicule de liaison eh, ndax bu ñuy jëli yenn yi ñu mun ko di loolu di ko di ci di di ko doolee ko ci ambulance comme yàlla dogal na benn ambulance bu bu jàkk lañu lañu la ñu jotoon am mhm. donc oto boobu moo waroon di dem PNA moo war di dem ministère moo war di dox yenn course yi entre ñun ak banque yi ak yenn partenaire yi mhm. ak it su fekkee ne dañoo am euh, ay ay ay ay euh, analyse de sang yu ñu war a yóbbu yoo xam ne bokkul si hôpital bi wala ñuy def ay demande de de de sang aussi moo ko waraloon waaye dañ daan gis accompagnant yoo xam ne dañuy jël infirmière teg ko ci kaw kii ci kaw euh, scooter mhm. di ko yóbbu ak ak ak glacière muy dem di jëli moom mu jël oto bi confisque ko di ci xëy gaare ko suñu bi jotee mu ñibbi nit ñi nekk di lijjanti ñoom lu leen yóbbu mhm. donc bu fekkee loolu de loolu de la yóbboo woon Mm-hmm. loolu la ñu yóbboon donc euh, nous pensons que moom waroon na koo téye rek comme nee na moo ko moom waaye war ko woon a jox ndax boobaak léegi nit ñi ñëw fii di ko di gis gis nañ ni carrément que ne oto bi bàyyee na koog ñun kon moom comme nee na moom mooy solution bi ñun de gis nañ ni li ñuy wax yëpp saa ñu waxee dara rek mu daw gaaw def ko balaa ñu koy waxaat mm-hmm. kon nag tey jii noonu moom bi mu gannaaw bi mu porté plainte après mbir mi fan la mujj ci ci wàllu bi yoon mujjewul fenn ndax mm-hmm. dafa retiré plainte bi Mm-hmm. waaw dafa retiré plainte bi. Mm-hmm. Euh, yaa ngi wax sànq un ensemble de dysfonctionnement yoo am au niveau de Abass Ndao ne nga morgue bi mm-hmm. morgue bi doxul yeneen ak yeneen yoo xamante ne mooy doxal hôpital. donc actuellement naka la personnel bi di defee liggéey bi. waaw ak ak ak jafe-jafe rek. Mm. ak jafe-jafe rek. wax dëgg yàlla ak jafe-jafe rek lañ koy doxee gore lool ndax gis ngeen dysfonctionnement yi ñuy wax yëpp waxuñu lenn loo xam ne dafa am ay incidences financières et pourtant. Dieu sait qu'il en existe. Mm-hmm. parce que suñu ay heures supplémentaires ni ñu ameel juróomi at ba jàpp juróom-benn. Mm-hmm. astreinte yi nga xam ne moo euh, moo moo moo remplacé heures supplémentaires ci médecin yi amee luñu leen benn bor bërki démb bi ñu ne suba la grève bi lañ leen fay ku ci nekk cent mille par semaine. Mm-hmm. mooy maanaam daal euh, euh, xaw ma naka lañ koy waxee ci jooyu jooyu baadoo la muy siin cerek buur loolu daal moo am wax dëgg yàlla ci hôpital Abass Ndao te duñ ko nangu nag mhm. parce que nag dañoo am lu ñu lu ñu lu ñu droit du travail jox nous sommes des syndicats légalement constitués nous sommes représentant personnels ñu ñu am couverture sur le plan national et sur le plan international du moom mooy dindi suñu malaanum kiiraay mhm. donc dañu war a taxaw en tant que contre pouvoir doxal loolu mais nous ne sommes pas contre un pouvoir contre pouvoir la ñuy joué nag mais nous jouons notre rôle de veille et d'alerte parce que loolu mooy mooy rôle représentation personnelle ak ak ak ak délégué euh, syndical. Mhm. Euh, ñu ngi wax aussi que ne morgue bi mu ngi en panne depuis trois mois quand loolu yàgg na. du trois mois six mois la. six mois voilà. Mhm. waaw loolu quand même. yàgg na mhm. yàgg na. léegi léegi tey euh, waa And Gueusseum da te lal ab plan d' action. mën nga revenir un peu ci plan d' action bi. waaw plan d'action moom lundi la woon. Mhm. lundi lañ ko commencé woon def sitting lundi def point de presse mardi ñëw mercredi sitting defaale évaluation jeudi démb ñu def grève générale d'avertissement de vingt quatre heures tey vendredi tey ñu sitting quinze heures ñu dem évaluation au siège de la FGTS pour xool suñu deuxième plan d'action naka lañ koy dérouler. Euh, parce que euh, ci euh, point de presse bi ngeen teniroon ba ma la laajee. da nga mhm. ni yéen a ngi waajal passer à une vitesse bu fekkente ne. dara mhm. saafaraw ci. ci ah, diggante mi amul dara loo xam ne jot na cee am ci wàllu médiation wala wàllu ndox jàmm daal. waa ak kay am na am na yu ci am ci wàllu médiation yoo xam ne wax dëgg yàlla duñ ko mën a génnee léegi. Mm-hmm. waaye kilifa yi nga xam ne ñoom daanaka fa la ñu bokk tam ñu ŋànk ci hôpital ñu ŋànk hôpital bi. Mm-hmm. ay la yowén ñu ngi dox doxu jàmm boo xam ne waxtaan am na fi boobaak léegi. Mm-hmm. waaye comme tam syndicat la ñu euh, gisaguñu loo xam ne daal dal na xel lool pour ñu mën a lever suñu ay plan d'action. waaye ay la yowén nag ay waxtaan mi ngi am. voilà euh, ba tey dañuy jàll rek ci beneen point euh, parce que bu weesoo loolu yéen waa alliance And Gueusseum amaloon ngeen benn ndaje. le premier septembre ngeen doon wax que ni euh, seen i prime de motivation maanaam mm. ñu ne agent collectivité territoriale yi ci wàllu lutte Covid 19 def ci am daal discrimination bu ci am. waaw waaw. Mm. loolu kay leer na ndax euh, première discrimination mooy que benn groupe nga fay ñi bàyyi ñi mooy première discrimination. Mm-hmm. deuxième mooy que ña nga fay trois mois nga leen fay. te ñi nga xam ne ñoom ñook ñoom ñoo bokkul liggéey bi ñuy def wala ñun ñu gën a sax metti la liggéey nga fay leen juróomi weer ñun ñu fay leen ñu fay ñenn ñi ñett te ñooñu ñu fay ñett ñoo ñi nga xam ne sax amuñu dara fayuñu leen dara. Hmm. xam nga loolu moom mënta nekk. Hmm. kumba am ndey kumba amul ndey. nga def ñii nga fay leen lu mat seen juróomi weer. Hmm. ñenn ñi nga fay leen ñetti weer ña ca ñoom ngay leen raay leen seen jëte xaar loolu moo am. ministère de la santé lan lañ ci joxe comme explication. ah déggaguñu explication boo xam daal daal na suñu xel ñun ba ñu mën koo wax. Mhm. parce que depuis le premier septembre euh, lu bëri euh, jàll na maanaam tey nous sommes le 18 donc entre temps mhm. parce que yéen da ngeen joxoñoñ baaramtuma ministère de la santé ngeen ne moom mooy mhm. amal discrimination ci mbir mi. waaw dëgg la. dëgg la di weddi wuñu ko benn yoon de. ndax lu ñuy wax ñun dañ koy dañ koy wax te teg ko ci dëgg teg ko ci yoon. duñu fomante te duñu wax loo xam ne su ëllëgee dañu nuy dab. Mhm. la ñu wax loolu boo nekk. léegi euh, bu yàggul tamit teg ngeen fi ab concept bu ñu naan opération goxi. donc opération goxi jëm ci ba tey leeraange am ci indemnité fonds Covid 19 mu mel ni daal fonds yooyu jur na coow lu bari daal. ah koo jur ndax suñu waxee ne joxe nañu nangam pour ñii la nga ñëw am ñoo tànn am ne bàyyi ña ca te suñ ko calculer mu am lu muy nuru. Mm. faaw ñu ñu tuddee ko gox bi comme ñoom ñoo ko seex kay nañ ko gox jox ñu suñu cër. <laughs> ñun laajuñu dara suñuy droit rek la ñuy laaj. Mm-hmm. ñaanuñu it. mu mel ni kon secteur de la santé bi ci jamono ji euh, mun nañ ne jafe-jafe yi ñu ngi ñu ngi fii euh, parce que Covid bi en un certain moment yéen syndicats yi xawoon ngeen retiré wu un peu. pour un peu may battement euh, nguur geeg yooyu pour peut-être ñu mën a dérouler ndax pandémie bi moo ko laajoon et tout mais gis nañ ni yéen tamit ah. déconfiné ngeen aussi <laughs> sur le plan syndical a ah, waaw war nañ déconfiné sur le plan syndical ndax euh, euh, macha allah ñun balaa dara xew ànd gësam ba mu yëgee pandémie bi rek la commencé def ay communiqué di attirer attention gouvernement mhm. da attirer attention booba gouvernement jëlul lenn ci ay décision ñu nekk ci nekk ci nekk ci ba yëf yi teer keroog bu mu teeree lañ ci wax. Mm-hmm. mais léegi nag ñun nanu dañ ci lépp te xool di nga xam ne mooy priorité yi ñuy doxal priorité di doxal di doxal di gis bés bu ne mbir yi di sooxe di gis gis bu ne mbir yi di sooxe. Mm-hmm. ba ñu xëy suba président de la république ne léegi daf ñuy bàyyi ñu dund ak virus bi comme mooy maanaam pexe jeex na comme moom bu pexeen jeexee ñu ñu def si déconfinement syndical taxaw nag léegi. Mm-hmm. pour jàngat li nga xam ne moo moo moo baax li li li baaxul te ñu nangu ko dégg ñu jooyanti ko li ñu lànk kaare ñu taxaw. u mhm. waaw noonu rek la demee. kon neen gis ngeen ni daal euh, maanaam nguur gi tey est-ce que gestion bi déjà gestion Covid bi. yéen waa ànd gësëm personnellement sax laay wax Adja Ndeye Diakhaté ndax tey gestion bi sur le plan sanitaire sur le plan même côté fonds yeeg yooyu ak li ci jot a am yëpp. Euh, tey mhm. lan moo si yow sa sa analyse. waaw li ma ci sama analyse mooy nag wax dëgg il faut pas être nihiliste am na mm. ci lu bare loo xam ne ci Covid bi jural na ko structure de santé yi parce que gis nga foo xam ne ne xëy na dañ doon am problème mu euh, euh, nu mu tuddati euh, réanimation ak matériel ba am na ñoo xam ne dote nañ leen ko kon nag duñ ni lépp baaxul mm. am na lu baax waaye am na loo xam ne ni dañ ko war a jooyante ak loo xam ne du tout jagul dañ cee dañ ko war a waxtaane Euh, tey loolu ñu ñu ñu ñu war a waxtaanee peut-être tey euh, aussi euh, gis nañ ne même ci wàllu peut-être lever yenn mesures yeeg yooyu tey par exemple ci circulation bi Ndiaga Ndiaye yeeg bus yi tàmmali waat na nit ñi di taxaw mu mel ni comme si daal vivre avec le virus mooy daal bàyyeeku daal parce que bu fekkente ne dem nañ ba nit ñi taxawaat di tàncaloowaat te pourtant feebar baa ngi fi ba léegi loolu tamit day xaw a doy waar. ah waaw waaw waaye xam nga ba ñu waxee rek ni vivre avec le virus moom te la ñu wàccee lépp. Mhm. ci la yëf yi commencé woon di yokku. léegi nag suñu demee ba yëf yi ñeeku ñu gis ne euh, am na euh, la tendance est baissière ñu xëy ñu ne ñu ne ñoom it nañu nañu def lii parce que euh, wax dëgg yàlla sur le plan économique ñoom am na luñ ci seet. ah baax na nañu nañu bu ñu doxalaatee rek ñun ñu évaluer ñun kaa ñun weer wu jot danañ génne suñu communiqué def suñu déclaration. saytu mbir yi te tegaat ko ci li ñu xalaat. Mhm. suñ ñu dégloo baax na suñ ñu dégloo fekk ñun li ñu war a wax ak li ñu war a def def nañ ko. Mhm. Mhm. waaw euh, tey jii aussi yéen ngi laaj li nga xam ne moom mooy genre euh, audi financier bu hôpital bi nga xamante ne kon mooy hôpital Abass Ndao pour un peu xool tey dysfonctionnement yi fa nekk euh, loolu ngeen yaakaar ne dina dina antu surtout que bon yéen a ngi am un peu de bis bi ak direction bi waaw mais du direction mooy def audit ñun autorités yi la ñu demandé ñi nga xam ne ñoom ñoom suñu kilifa di suñuy njiit ñooñu la ñu demandé à ce que ñu audité te mhm. ñun sax waruñu koo demandé da damaa jàpp ne autorité war nañoo am xel ndax ministre yi de ni ñu leen di sañ a di wax ne nañu dem oftan of nag pour euh, wa wane seen i am am ak seen koom-koom ñun da jàpp nañ ni foo xam ne daal lu ëpp un milliard ba jàpp de ñu ngi koy gérer kon wax dëgg yàlla ñooñu tam war nañu waruñu sax wax ñooñu ñoo war ñëw di leen saytu suñu toogee ne ba gis ni saytu boobu sooxee na ñu wax ko suñ ko defee baax na suñ ko deful fekk ñun wax nañ ko li ma la waxoon rek suñu rol de veille et d'alerte dara du ñu ci dindi léegi nag la balle est dans le camp des autorités. Mmh. la balle est dans le camp des autorités tey jii euh, li nga xam ne moom mooy Covid bi euh, feebar bi mu wone que ne euh, comme ni ma ko waxee sànq système de santé bu Sénégal dafa bëri daal ay sooxe yoo xam ne am na ci la preuve tey xam nañ ne santé bu doxul lu bëri dafay taxaw. yéen yàgg ngeen di porter ay combat peut-être ay droit ak i accords yoo xam ne signé ngeen signé woon ngeen ko ak nguur gi ñu toog at yu yàgg mu am ay lenteur yoo xam ne am na si donc tey jii nii fan ngeen toll ci peut-être revendication yi nga xam ne yeneen ko doon amal même avant sax Covid bi ak peut-être fonds yi nga xam ne am na ci coow li nga xam ne jur na ko ah ñun suñu ay revendication ci la duñu ko bàyyi bi mhm. ñu ay revendication dañuy continuer di revendiquer muy am toujours parce que nag revendication du jeex lii buñ ko satisfaire leneen ñëw na taxawaat donc ñun suñu ay revendication buñ ko mës a bàyyi li ñuy laaj dañ koy mës di laaj mooy na lépp leer mooy nañ technique ci yoon mooy que buñ la joxee mbir bul jàpp ne yaa ko moom da ngay jàpp ne alalu àdduna la alalu mbooloo la surtout secteur de la santé bi nga xam ne dafa sensible trop ñuy ñuy attiré waat attention autorité yi gis nañu li ñu dab ndax àdduna yëpp muy pandémie bi moo wane insuffisance yi nga xam ne bare na ci secteur de la santé ñu bokk nag OMS gi nga xam ne daf ne quinze pour cent du budget euh, euh, euh, de l'État war nañ koo alloué au secteur de la santé loolu nag amagul ñu di ko laaj te di ko demander ndax jaadu na lu tool ni secteur de la santé ndax nit bu wérul du mën a def lenn la santé et à la base de tout ñu am loo xam ne nii booba ba tey mi ngi sooxe jàpp naa ne daal lii bu doon dañ doon nelaw war na leen a yee ñoom autorité yi pour ñu xam ne ah euh, Sénégal day yaramu màgget la fépp ay metti mm-hmm. waaye secteur de la santé de jàpp naa ni moom ak éducation ñooy base développement wu réew mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ñooy base développement wu réew tey wàllub santé bi aussi mu am ay jafe-jafe yu ci am parce que tey am na sax ay secteurs yoo xam ne ils ont des difficultés lu mel ni centre de transfusion sanguine tey deret bi doon loo xam ne day am ay rupture ak yooyu pénurie comme euh, ni ko euh, directeur bu hôpital bi waxee woon ci jamono yi dans di lancer un appel du pied pour que nit ñi gën a fagaru ci mbir mi mais nit ñi aussi dañoo ragal parce que pandémie bi moo tax ba dootuñ sax mën a dem di maye deret ak yooyu. ah mais c'est mais c'est normal nag maanaam ñun ñoo war a dalal seen xel rek waaye ñu ragal bare na parce que jàpp nañ ni loo loo def rek xëy na euh, wopp ji dal la te wopp ji bala dalee da ngay wàcc liggéey loolu la nit ñi di jàpp rek waaye euh, wax dëgg yàlla loolu moom euh, geste civique la geste la parce que wopp day dabe te wop joo xam ne ni dafa war a ànd ak may deret ñu war la koo sol li gën te jaadu mooy nga ja waxante ak nit ñi ñu gën leen a sensibiliser pour wax dëgg yàlla ñu may deret ndax loo xam ne kenn mënu koo defar kenn mënu koo tabax ci nit lay joge dem ci nit dañuy ñaanaat population bi di ñaaxaat jeunes yi surtout ñi nga xam ne nii vraiment yenn tawat yi dalu leen ñu war a mën a dem tam maye deret waaye foog ñu gën a sensibiliser foog sensibilisation bi gën a baax. foog mhm. information bi gën a dem. gën a pour nga xam ne loolu moom vraiment. te loolu aussi yéen syndicat yi am ngeen ci rôle aussi yéen bu baax. ah bien sûr parce que mhm. syndicat yi sax dañuy maye ay deret mhm. loolu kay ñun suñu rol première la mhm. waaw suñu rôle cardinal la tam wax dëgg yàlla waaye nag euh, euh, syndicat rek du doy euh, parce que liggéeykat rek doyul ndax liggéeykat yi matuñu sax un million ci Sénégal te seize millions de Sénégalais lañu kon nag war nañoo boole ñëpp rek ñun ñëpp loxo ak loxo tànk ak tànk mbagg ak mbagg ñu góorgóorlu ba loolu tam ñu jàpp ci bu baax a baax a baax ndax mhm. loolu daal moom moom moom moom moom loo xam ne kenn mënu koo defar comme ni ma ko waxee loo xam ne kenn mënu koo remplacer daal lu dul rek la muy moom rek nañ ci jàpp bu baax a baax te ma ma damay profiter ci seen tribune bi pour ñaan population sénégalaise ñaan jeunes yi ñaan xale yi ñaan militaires yeeg ñëpp ñu dem jàpp ci pour vraiment ñu am suffisamment de sang bu ñu amul lépp ñu am loo xam ne dana tane dana xaw a dalal xe Euh, surtout tey ñi nga xam ne mooy les femmes ñu war a accoucher ci yenn conditions yi ak yooyu donc euh, dafay xaw a doy waax aussi. a ah, waaw waaw moom kay ci lépp lay doy waar euh, jigéen joo xam ne xam nga moom moo mucc moom dafa ànd ak di di di mhm. loolu moom loolu moom lu am la ak yeneen feebar yoo xam ne day tax ngay anémie tout temps ñuy demander à am loolu loolu tam xam ne lu wér la te wax dëgg yàlla perdre la vie en donnant la vie moom gënul. kenn ñaanu ko yàlla loolu rek war naa tax ba ñu gën ñoo jàppale. Mmh. Euh, voilà ba tey rek may fàttali ñu ngi wax sa waxtaan ak Adja Ndeye donc di vice présidente bu alliance And Gueusseum te ñu waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe ci wàllu wér yaram ci jamono yi ak gestion Covid bi waaye tamit euh, jafe-jafe nga xam ne kon hôpital Abass ndaw ñu ngi koy euh, jànkonteel ci euh, fi ñu toll nii. ci gestion Covid bi kon ñu gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy nguur gi am na ay stratégie maanaam ñu ngi daal di jubbanti ndànk-ndànk ci sixième mois bi ci point bi nga xam ne amal nañu ko bi waa ministère ñëwee def seen statistiques yi ñu jot a yooyu ñoom wane nañ peut-être tey ay stratégie yu bees comme traitement à domicile yeeg yooyu donc daal wàññi daal peut-être yenn coono yi jubbanti yi daal am na ci parce que au début gis nañu ko ne peut-être bi ci côté boobu dañ daan ñëw sa kër si la bëccëg jël si mbokk yëpp euh, waa koñ bi di ko gis affaire bi daal juróon stigmatisation mais gis nañ ne yooyu mel ni daal jubbante daal am na ci. ah waaw kay jubbante daf ciy am ñaari yoon jubbante daf ciy am ndax stigmatisation bi. Hmm. waaye jubbante daf ci am ndax wax dëgg yàlla tam euh, mbooloo moomu yëpp amuñu suffisamment de structure yoo xam ne mën nañu leen jël en charge correctement kon nag koo xam ne ni xëy na mbir mi sonal lool lool te nga tey nga nga am sa kër cadre boo xam ne vraiment mën nañ la fay fekk di la jàppale loolu tam day loolu tam day baax ndax ci réew yi nga xam ne sax ah. ñoo gën a kawee Sénégal yi dañ koy def kon nag mbir mi mu toujours dubbanti la au fur et à mesure ñuy dem idée yi di gën a ñëw xalaat yi di gën a rafet ñu àndandoo di ko doxal. Mhm. waaw tey est-ce que yéen syndicats yi impliqué nañ leen ci ci wàllu stratégie yooyu. non non non déedéet. Mhm. impliqué leen. non non non déedéet. ah mais loolu tam doy na wax de parce que yéen yéen ay porté maanaam bëgg-bëgg askan wi yéen a xam ci base bi ñi nga xam ne loolu la askan wi di ñaxtu. waaw waaw waaye nag euh, buñ ñu boolewul ñun du ñu duñu ñu du ñu yëkkati suñu loxo di forcer benn buntu de mm. da moo tax nag weer wu jot ñu def suñu communiqué génne suñu ay déclaration wax ñun suñu position libre à eux ñu jël li nga xam ne ni moo leen ci gënal libre à eux ñu bañ ko jël mm-hmm. waaye ñun li ñu war a def ñu ngi koy def en tant que mm-hmm. ñu gis ne aussi jamono ji tendance baissière am na ci euh, Covid bi donc chiffres ñu ngi wàcc et tout donc tey jii mu mel ni kon feebax bi daal mu ngi wàññeeku nànk-nànk nañ ñaan aussi mu peut-être bañ a amaat benn résurgence comme peut-être niñ ko gisee vague yenn réew yeeg yooyu noonu. waaw loolu de moom am na te ñuy ñaan rek borom bi tabaaraka wa taala mu gën ñoo jàppale ba yëf yi gën a wàcc waaye it warul tax ñun ñëpp ñu ñu baisser les bras au contraire dafa war a tax ñu gën a takku ndax mbir mi jóge fi ndax ñun duñu réew moo xam ne réew mu réew mu koom-koomam bare lool la. kon feebar bi nu mu gën a yàggee rek ndool gi di gën a metti kon dañuy gën a ñaaxaat nit ñi rek tendance baissière bi san san san euh, di pas que ça ne signifie dañoo war a wàcc suñu loxo au contraire dañoo war a gën takku gën taxaw temm pour mbir mi daal mbas mi génn fi rek ci nu mu gën a gaawee. Mm. Eh, gis nañ ne bi tabaski bi paase ci la kaay yokkoon bu baax a baax. tey jii wàññeeku na ñu ngi waajal yeneen rassemblement ay événements religieux est-ce que loolu tam ñaanuñu ko yàlla du tam andiwaat yeneen résurgence a ah, waaw ñaanuñu ko yàlla de eh, te nga loolu moom mbir mu sensible la te jàpp mhm. nañ ne lu mel ni màggal mhm. eh, eh, loo xam ne sëñ Tuubaa da koo digle mhm. xëy na ñun duñ ci mën a wax ndax doon faa dëkk bokk fa waaye jàpp nañ ni xalif bi Mhm. ak euh, bañ ne salaamaaleykum moo njëkk a dugal loxo xalif bi moom xalif bi joxe na ay ay matuwaay moom wax na masque yi na ko nit ñi sol waaw mhm. léegi léegi kay euh, fi mu nekk nii li li ci nekk mooy sensibilisation bi te boobaak léegi ko dem Touba gis ñu ngi sensibiliser ñu gën a ñaaxaat rek mhm. euh, mbokk yi taalibe yi nga xam ne dañuy dem ci rassemblement yooyu ak bu mu mën a doon ñu gën a xam ne war nañoo mën a respecter geste barrière yi di takk masque yi di raxas loxo yi fu ñu toll Euh, di di di fegu daal bu baax a baax tey fekk nag mag nga di nekkal. Mhm. loolu daal jàpp nañ ne buñ ko defee booleeg ñaani kilifa yi mën naa am ba mbas mi du fi yokkuwaat te lool it lañuy ñaan. Euh, waaw Adja Ndeye Diakhaté ñuy fàttali ah. yow lañ doon dalal tey ci sunu mhm. émission SOS santé di la ah. neexee nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi. waaw xanaa di tàggu ñëpp di leen gërëm di leen sant ci invitation bi. Mhm. Euh, di leen wax ne mbir maa ngi noonu. Euh, ñu ngi ñaan rek mbas mi jóge fi mhm. ñuy ñaan ñu gën a respecter gestes barrières yi mhm. euh, ñuy ñaan autorités yi aussi ñu gën a jàppale structure santé yi mhm. pour taxawaay yi gën a rafet taxawaay yi gën a jekk pour le bien de notre pays pour le bien de la nation sénégalaise mais également pour le bien de la population. Mhm. je jërëjëf kon Adja Ndeye Diakhaté ñu fàttali ne yow yaay vice présidente bu ànd gësëm doon am mbégte di ànd ak yow tey ci suñu émission SOS santé. kon ñu leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci seen déglu di leen di daje ajuma bii di ñëw ci beneen émission SOS santé.